merci beaucoup président merci beaucoup Momar alaaji mën nañ jublu suñu invité bi comme ni nga ko waxee xanaa waaw di nuyuwaat sénégalais yi ñuy seetaan bu baax a baax a baax a baax di nuyu suñu frère euh, Papa Ibrahima Ndiaye comme ni nga ko waxee alaaji euh, muy euh, secrétaire général bu CADE en même temps di porte parole bi alors jot nga ko dugal sax ba mu wax li nga xam ne moom nag mooy yittey CADE li nga xam ne moom la taxawee ñu wax ci formation ak incubation donc formation pour vous cadet c'est un défi. c'est un défi balaa dara nga nga may ñu. allez-y ci ci lancé bi nga xamante ni sax mu ngeen nekkoon di waxtaan. ah ci allez-y qu'on qu'on lance un message surtout en mm-hmm. français parce que je tenais à le faire. parce mm-hmm. que il n'y a qu'une seule jeunesse. Mm-hmm. et elle est africaine. et l'Afrique est indivisible. donc permettez-nous de de de parler à à ces gens-là qui sont non sénégalais. qui ne comprennent pas le le wolof. et qui euh, envers nous ont un soutien indéfectible et constant. Je vous parlais de ses amis du Gabon, du Niger, du Burkina Faso, à qui nous disons d'être tout simplement sûrs, rassurés et conscients du fait que nous sommes en train de parler, que de cet avenir de l'Afrique qui nous tient à cœur et que nous sommes dans cet engagement constant qui est, qui est un engagement sérieux et, et sincère pour notre chère Afrique. Mm-hmm. loolu la woon. message bu baax pour la jeunesse africaine. Euh, donc ñu ngi rafetlu loolu trop parce que yaakaar naa ne. cadet euh, aussi c'est international. cadet c'est international. alors euh, jërëjëf euh, Alaaji ça nous permet de de de saluer d'abord nos représentant au niveau des antennes parce que dama ko fàtte préciser ci présentation au parce que cadet c'est un réseau de jeune bu nga xamante ni l'objectif lorsqu'on a fait l'analyse bu ñu defee taxaw seetlu ba pare. dañu gën ni pour ñu gën a mën a impacter il faut que ñu déployer wu sur le territoire sénégalais donc il faut que ñu am li ñuy wax ay antennes parfois des antennes régionales donc on est au niveau de Saint-Louis di nuyu Ibrahima Souleymane Mbaye on est au niveau de Dagana on est au niveau de Thiès de Ziguinchor de de Kédougou avec euh, Souleymane Sall mais l'antenne internationale Kaolack amaguñ fa mais sur 2023 incha allah dañuy mëtal antenne régionale yëpp mhm. c'est c'est ça c'est ça le but ak Good Morning dinaa wax lan mooy l'histoire de Good Morning avec Kade. Mhm. fii ak ma paree introduction mhm. formation donc euh, maa ngi doon wax par rapport à l'antenne internationale muy au niveau de Casablanca. Mhm. donc c'est le lieu pour moi ma nuyu ñi nga xamante ni ñoo fa ne gëm Sénégal. alaaji gars yi gëm nañu Sénégal. macha allah gars yi bëgg nañu seen réew. gars yi surtout bëgg nañu dellu si. mais nañuy dellu see. la ñu xamul. ci loolu mooy li ma doon wax sànq ci introduction ni nit la mu bëgg da nga ko koy laaj ba pare xam ko soo koy mën a indil alternative ci loo xamante ne yéen a ko xalaatandoo muy les alternatives dans la réflexion commune loolu la ñu def au niveau de Casablanca muy suñu première antenne diaspora ñi ngi waajal seen assemblée générale d'ici le mois d'avril avant weeru avant gi dinañ ko def que ñun ñu déplacé wu ou pas dinañ ko def mais déjà ya a un réseau de jeunes qui ne sont pas que sympathisants yu nga xamante ni dañoo gëm le projet cadet mhm. je veux citer des jeunes comme Bassirou Baldé comme euh, Tafa comme Ababacar mbay Diop yu nekk Maroc mhm. donc tout cela pour aujourd'hui que suñu action mën a nekk une action bien impactante sur la communauté sénégalaise mhm, et au niveau de Casa li nga xamante ni moom lañ gën a mën a noter mooy il n'y a pas que des Sénégalais parce que aussi pour ñu mën a xeex yi nga xamante ni mooy comme tey li xew avec les propos que je juge euh, du du président tunisien mooy aussi qu'on ait cette force la au niveau de l'Afrique subsaharienne pour enfin être au concert des nations. Mhm. donc moo tax foofu noonu au niveau de Casablanca la tous mooy il n'y a pas que des Sénégalais. Mhm. il y a la CESAM qui est la confédération des étudiants sénégalais. Mhm. Euh, des étudiants africains et stagiaires au Maroc. donc il n'y a pas que que que des Sénégalais ci confédération boobu noonu ils sont je pense au niveau de 7081 jeunes entre euh, Nigériens euh, Tchadiens. ñu nga xamante ni on est en train de travailler avec pour qu'ils adhèrent à la philosophie du CADES ça c'est fait li ci des mooy maintenant signer une convention mm-hmm. loolu mooy l'aspect international du du e. dinañ ci gën a euh, suux ci waxtaan bi avec le CADES ëpp CADES doon rang de mais jëluñ ma ba léegi <laughs> e rang naa fa ba sonn ah, léegi l'histoire nag avec Good Morning mm-hmm. mooy xam nga lépp loo gis muy président muy secrétaire général booy xool son ne sont pas les hommes les plus techniques mm -hmm. ce sont souvent les hommes qui déclinent la vision maanaam gis-gisu euh, kuréel bi ñoom ñoo koy doxal mhm. mais maintenant pour gis-gis boobu noonu ñu mën ko traduire mu doon ay jëf ay action mhm. il faut nga am ku nga xamante ni moo gën a technique gën a mine de terrain mhm. bi nga xamante ni ci nga ne euh, am nga ku leen fi mës invité ku tudd Ibrahima Cissé Cissé le projet Green Life moom mooy def. Euh, hmm, des pavés à partir de. des des ak ak Pa Oumar. ñoom ñoo ko a invité c'est un hmm. mercredi. Hmm. donc ci la ko suñu président gis moment boobu on était au niveau de Casablanca au Maroc déjà pour euh, l'installation de l'antenne. mu gis émission bi gis booy bi ne ma kii il technique. le président l'a appelé dès son retour Abdoulaye Ciss bi mu woowee Ibrahima Ibrahima bi ñu ñëwee on a on a vu son attitude. au niveau du cadet. mooy ñi nga xamante ni da leen di gis rek xam ne ñii li ñu ne dañ seen yëf la quoi. da nga leen mhm. koy nangul. Mhm. et aujourd'hui euh, par la beauté de l'histoire moom mooy le coordonnateur national du CADET. macha allah donc on a quelque chose à rendre Good Morning ci Good ah, Morning lañ ko gisee donc ah. ça ça c'est belle histoire ay Good Morning. voilà sa ministre bi li mu doon wax. <laughs> ma ne ko sa ministre bi. good morning après ñii nii. la eh, bàyyi ma kooku yow nga xam ne day tux omo résultat bu bu ministre moom saa yoo xoolee poste bi am na benn raabu omo bu mu fa def. <laughs> di fóot rek day tux omo. alors mu nekk lu rafet donc mhm. nekk histoire boo xam ne kii loolu lañ koy wax chaque jour et puis moom la ñuy gëmloo quoi. Mhm. Euh, parce que sénégalais yi ñu ngi ñuy déglu ñu ngi ñuy seetaan te façon bi ñuy seetaanee tamit xam nañ ne dafa positif. lu baax lañ ci bëgg comme ni ngeen ko gisee noonu donc moom ak Pa Omar aussi. Cheikh Diop nee na benn émission moo ma dul raw muy bii. mooy émission boo xam ne. Mhm. Euh, du jàmmal lu jëmale kanam réew mi rek. lay teg. Mhm. bu ma rawee dama koy seetaanaat. Mhm. moom Cheikh Diop moo wax loolu. mais yéen dama leen a laaj question sànq de. quels sont les problèmes. des jeunes du Sénégal mais loolu problème la. bien sûr dinañ ci ñëw mais am na lu ma ko jotoon a dugalal. dugal dugal ko da nga ko da nga ko kii. bien sûr parce que bon mu ngi doon wax euh, li nga xam ne mooy. cadre international donc mu hmm. ñu waxee loolu aussi euh, au Sénégal yéen a ngi. yéen a ngi ci def lu am solo donc ma ne hmm. la formation un défi pour vous. la formation un défi pour le cadet parce que hmm. booy xool euh, Alaaji bu ne nee téeméer boo jël rek. 76 pour cent yi maanaam ay ndaw lañu. Mhm. ñooñu ca la ñu toll mooy d' abord ñu former leen. Mhm. donc formation bi lu tax mu nekk un défi il y aussi li ñuy wax une euh, incompatibilité entre li nga xamante ni moom la ñuy def en classe. Mhm. ak l' ci ci ci ci ci domaine professionnel bi. parce que lu bëri tey euh, nit ñi ñu ngi ñu cay rawee par exemple je je prends l' exemple des pays comme le Kenya maanaam les pays anglophones de de l' Afrique xoolee tey liñ ñu ëppale. mooy cette cette formation la qui est maintenant adaptée à ce monde moderne. Mm-hmm. donc tey jii fi ñu toll génération bi ñu toll avec ce capital humain que nous avons ak dividende démographique bi ñu am nous n'avons pas le droit de rater le coche. Mm-hmm. donc tey bu ñu bëggee euh, nekk sur cette même lancée la que ces pays mm-hmm. il nous faut travailler à la formation. ma ñëwaat ci cadet encore une fois le cadet n'a pas un certain pouvoir pour que. toutes ces actions puissent être ressenties par tous les Sénégalais. Mmh. donc loolu mooy le sens de l'engagement communautaire il faut que ñu koy rappeler à chaque fois maanaam ñun dañuy jug proposer porter ay projet porter ay initiative ku ci fekk si ñu jël ku ci fekk si wul ñun ñu xayrul l'essentiel mooy nañu impacter. Mhm. suñu but mooy impacter. Mhm. à la fin mhm. donc lu tax ñu commencer formation bi formation bi à travers déjà euh, li ñuy tuddee le cadet orientation system le COSBAC on était à Tivaouane Peulh ce samedi bi yow man ak yow sax ñu ngi doon euh, coordonné Alaaji ce mhm. samedi on était à Tivaouane Peulh mais on a été euh, de de que par exemple élève day nekk ba terminal en L ou en S mais yàlla xam na ni xamul la formation qu'il doit faire pour aller à son métier. Abdoulaye bàyyi ma waaye. bëri loolu la fi nekk euh, Pape Ibrahima bàyyi ma waaye ma la Abdoulaye sax man tiit naa yow nga ni surpris. non loolu dafa sibri mais mais mais euh, ala Pape Sidi. Eh. non loolu loo si sibri. terminal ah yaa ngi mel ne dëkkoo ci réew. terminal L terminal s eh. waa ngay sibiri nga dem ba egg fa. Mm. yow fii ngay gis ko am master licence doctorat wala mu am DEA e nga ni ko looy def mu ne la xaw ma. lu ma yàlla jox rek ay concours enseignant ngay mujj dem def. est-ce que dégg nga fi may waxee. Mm-hmm. je comprends maanaam maanaam pas pas li mu war a def comme métier. mais li nga xamante ni formation boobu la war a def pour egg ca métier ba. maa la wax loolu. loolu xam nga nag doy na war. non loolu la ñuy wax le système. Mhm. mooy la booy di kaas nii. Mhm. waaw booy yaa ngi koy kaas booy dañuy li ñuy jàng dafa bari te amalu leen njariñ. justement. même dañuy dañuy wax benn côté bi ndax suñu suñu universitaires yi li ñuy def mhm. correspond na ak suñu modèle d'économie. évidemment. donc loolu moom mooy vraie question aussi donc mm-hmm. moom mooy li ngay wax donc dañ koy jëmmal parce que Pape Sidi li mu wax tamit daf na la loolu moom moom du ko parce que moom la ñuy dund quand même que orientation métier boobu noonu xale bi war na ko xam bi muy nekk sixième war na mën a xam li mu bëgg mm-hmm. mais ñun modèle bi ñu am comme ni nga sitee kaawu Kenya ñoom dañoo am modèle boo xam ne tey nit ki day jóg ñu orienté ko ci benn métier mm. tàggat ko ci mais ñun modèle bi ñu am tàggatul kenn ci métier cest da ngay am benn diplôme bi yow doo xam foo jëm. maanaam pour ñu tegtal la donc CADET donc su ngeen waxee ci formation bi yéen donc ci niveau boobu éducation beeg euh, kii bi dafa am neneen loo xam ne CADET da ciy taxaw pour gën a mën a gindi xale yi. pour ñu am ñu am choix par rapport ak li ñuy def. formation bi loolu la à travers surtout ce projet là projet boobu mooy projet orientation parce que comme ni ma koy waxee ba ma nekkee Tivaouane Peulh man ma ne leen euh, boo demee ci bërëb war a am foo jàdd xamoo gos la war a droite la. ka lay wax dafa am solo. Mhm. donc ka lay wax tamit faw mu faw mu mën a xam. donc euh, ci la ñu commencé le projet de cadet orientation système mais le beneen beneen projet bu nga xamante ni mooy toucher la formation. c'est la tournée universitaire moom lañ lancé ak Cheikh José c'est la deuxième histoire peut-être même avec Good Morning mmh. parce que invité ngeen ko aussi mmh. Cheikh José maintenant c'est le chargé des relations universitaires Pape Sidi si tu c'est celui qui faisait le tour des écoles pour parler de certains thèmes et eh, vous vous nous regardez et vous dans dinañ dinañ la fay dinañ la fay loolu vous piochez dans Good Morning quoi Cheikh José maa ko fi invité lundi Cheikh José donc moom moo lancé Cheikh la José tournée universitaire le projet de de cette tournée là. Mm-hmm. donc il faut que ñu déployer wu ci université yi. Mhm. déjà mooy li nga xamante ni c'est au moins li xam nga ni c'est structurellement régi. Mhm. démarche bi yomb na. Mhm. nga dem partager li ñuy wax des partage d'expérience avec des gens yi nga xamante ni ils ont au moins. de l'expérience dans le domaine professionnel du ñi nga xamante ne ñoo ñëw tey defal la un cours théorique pour te li ma lay jàngal nii boo ko serviree incha allah di nga te boo génnee doo gis foo servir. mooy loolu dafa am solo. Mhm. donc ci lañ ci lañ ko ci lañ ko di nga gis bii nii mooy la tournée qu'on a faite à EMEA. Mhm. donc euh, c'était sur le marketing de soi gis nga classe salle bi nu mu feesee dell. Mhm. c'est un amphi qui est comble dire que donc ñii soxla nañu formation ils en ont besoin ils en ont envie. vous formez les gens en quoi. bi la tournée universitaire c'était sur le marketing de soi. nous ne les formons pas nous avons des profils qui sont déjà là yoo xamante ni dañ leen di cibler en fonction toujours d'une réunion. qui est faite avec le bureau par rapport à la demande loolu dafa am solo maanaam ñun on vient pas te dire que li nga soxla dañuy ñëw à chaque fois laaj la lan nga soxla quelle est la demande au niveau des étudiants nga wax ñu ko on te dit waaw wala am nañ profil bi suñ ko amul ñu ne la amuñu ko. maanaam marketing de soi mooy comme papa nu mu sañsee correct. jaay jaay jaay sa bopp. jaay sa bopp wala ko alaaji daam nga xam ne day laal aw sa bi ci kaw. ci ci la dëgg. <laughs> mbaxana pays bi lay laal quoi. <laughs> c'est être soigné être correct. savoir ce que l'on vaut et pouvoir. Euh, mais Pape loolu dafa am solo. ya ya y' a y' a un grand qui disait que jamono bi ñu toll nii un projet mal présenté est un projet mort. Mhm. te te on souffre aussi de ce mal là on a souvent des gens qui sont très techniques. mais yenn saa yi pour ñu présenter la seen projet c'est c'est difficile. Mhm. donc avoir ces ces formations là ñu nga xamante dañ koy partager ak euh, suñuy ñun tamit ñu ci jàngale les membres du mmh, CADEP mmh. parce que am na yu ma la yónnee. Mmh. alaaji yu nga xamante ni c'est les qui sont faits pour les membres du bureau du CADEP. maanaam balaa ngaa digle sangu da set ba pare yow. charité bien ordonnée commence par soi-même. donc nous on fait très souvent des formations yi nga xam ne c'est pour le cadet les membres du bureau du cadet. pour gën leen ni moom la ñuy élaborer. eu la chance de rencontrer pas mal de jeunes dans les amphis, dans les euh, mmh. coins et recoins de, du Sénégal. Euh, vous pouvez avoir une lecture beaucoup plus euh, limpide que nous, mmh. le commun des mortels. Bon, ku ci nekk sa waa koñ ngay xam ak peut-être say ruq. En général, c'est quoi les problèmes euh, pour les jeunes Sénégalais à part mhm. la formation jàng ba dee mhm. loo mën dara. Mhm. wala lan la la école bi di former pour boo génnee nga xarañ ci loolu dara. Mm-hmm. da ngay jàng Baudelaire lu mu wax jàng Descartes jàng Platon jàng di nga philosophie ba ta dof <laughs> mais bon à part ce problème de formation la quels sont les autres problèmes pour l'employabilité merci Pape Sidi pour cette question parce que xam nga nag nous sommes un peuple qui moo xamante ne ñoo bëgg tendance mm-hmm. le Sénégalais adore la tendance mm-hmm. te par rapport à toutes ces pro tous ces problèmes là yu nga xamante ni on fait face euh, ñu bëri dañoo gis ni ñu bëri dañuy wax ni l'alternative c'est l'entrepreneuriat donc boobu mooy le le point essentiel du cadet ëpp mm-hmm. le projet cadet de 2023 l'entrepreneuriat ñu si bëri maintenant il se lance dans ce domaine là mm -hmm. tu vois beaucoup de jeunes léegi ñu si bëri dañ lay naan non man je suis dans l'entrepreneuriat je suis entrepreneur damay nekk ci lii damay nekk ci lale mais j'ai besoin de financement mm-hmm. mais est-ce que ñëpp ñoo war am financement booy xool le cadet ëpp c'est sur deux catégories maa ngi ñëw ci question Pape Sidif parce que bu ñu jëlee les jeunes la question plus on part, par dans les amphis di di wax ak ñoom c'est la question de de de la de la du financement sur les entrepreneurs l'accessibilité aux structures étatiques de financement aussi dinañ ci ñëw mooy li nga xamante ni la DER 3FPT yu nga xamante ni yooyu yëpp c'est c'est normalement des des moyens d'expansion de politique publique pour la jeunesse mais entrepreneuriat boobu noonu tey booy xool ci pilier wu cadre yi lu tax ñu ne du ñëpp ñoo soxla financement am na ñoo xamante ni formation lañ soxla ba pare d'abord mm. balaa ñuy dem financement mm. mooy la catégorie des entrepreneurs qui ont moins de trois ans d'expérience ñu nga xamante ni waruñu yàqamti li ñu war a def d'abord mooy se former afin de travailler sur leur projet leur business plan de projet l'efficacité de leur projet am na ñu nga xamante ni nag li leen cadre defal mooy la promotion à la financement donc promouvoir l'accès au financement des jeunes encore une fois on ne finance pas loolu dafa am solo Mhm. pour ñu koy préciser parce que fépp fu ñu dégg financement rek ñu si ba on avait beaucoup de problèmes au début mm. par rapport à cela gars yi ne Kadi day financé Kadi financé wul Kadi ne financer du tout Kadi amul ay fonds yu mu financé senior sax financé wul loolu surtout <laughs> Kadi du financé kon Kadi du financé kenn <laughs> surtout loolu heureusement que tour bi tour bi c'est assez mm. donc euh, loolu laa doon wax l'accès au financement le promouvoir à travers li nga xamante ni mooy euh, des actions comme le forum d'orientation de la jeunesse. Mhm. parce que lépp lu ñu xalaat rek peut-être loolu mooy la différence j'ose le dire en mhm. direct mhm. du cadet lépp lu ñu xalaat dinañ fexe lépp ba toftal ci lu ñuy wax jëf muy action. parce que lu ci bëri tamit bu ñuy critiquer jeunesse bi c'est que parfois c'est vrai on est trop dans panel panel. Euh, discussion discussion. mais après what's next quelle la suite. donc moo tax ñun à chaque fois on dit nous proposons des alternatives dans la réflexion et l'action xalaat après jëfale mais parce que pour revenir à ta question loolu la on voit beaucoup de jeunes qui nous parlent des problèmes d'accès au financement ça diffère aussi comme je je ne t'apprends rien du tout par rapport aux localités ça diffère par rapport à le problème du jeune qui est à Kaffrine bokkul ak le problème du jeune qui est au niveau de être dans la recherche participative maanaam ñun ak yéen pour seen problème ñun ak yéen pour les solutions ñun ak yéen pour les actions. Mhm. dañoo faire un vox pop alaaji lan mooy problème mu jeunes Sénégal yi. mooy suñ ndaw yi. waaw lan mooy suñ problème ñu en tant que jeune. waaw man damay pourtant dama ko bëggoon relancer par rapport ak li nga wax ni mais mën naa ah, tontu yow dama la dama leen bëgg a laaj dama bëgg am des avis différents par rapport à la question. bien sûr man maa koy jël quoi parce que dama am ñaari soxna. ñoo xam ne actuellement ñu ngi may seetaan kenn ki alaaji am nga xam da nga takk ñaari non ñaari soxna yoo xam ne ñu ngi may seetaan kenn ki mu ngi jógee Londres ay gan lañ ci man ah. kenn waaw mu ngi jógee France ay gan lañ <laughs> waaw ci wolof laa la ko waxee <laughs> léegi ñu ngi may seetaan léegi dama leen di laaj ñoom dañ may laaj parce que dañoo ñëw ma leen di présenter ñun ce qu'on ñun lu am par rapport ak suñu modèle yi ma la waxoon sànq mooy façon bi ñuy jàngee mm-hmm. ñu ne ma ñoom xamuñu Nelson Mandela ñooñu moom amuñu xam xamuñu non duñ ko jàng jànguñu ko seen réew maanaam jànguñu ñoom lenn ñun li ñuy jàng ñoom jànguñu loolu te ñoom seen réew ñun moom lañuy ñuy jàng comprendre li ma la wax ni mm-hmm. léegi kon ñun problème mu jeunesse sénégalais mu ngi commencé problème mu modèle d'éducation bi ñu yor guerre froide problème mu jeunesse jeex na guerre froide mm-hmm. le Japon du Meiji ah mm-hmm. euh, nu mu tuddati la deuxième guerre mondiale di ñu ci dëkk effectivement naka ñu ci dëkkal donc yooyu la ñuy jàng di ñu jàngal loo xam ne daf la leer na yow est-ce que lii nii c'est pour nga xam wala pour nga pour nga pour nga mën a def tabax sa réew la. Mm. beneen bi ci des aussi parce que loolu pour ñu jàng la beneen bi ci des aussi mooy alaaji jeunesse bi nga xam ne peut-être jànguñu métier la ñam actuellement dafa changé parce que kenn ku ne boo jàngee métier rek yow boo ko mottalee yaa ngi wax ne ko état dama bëgg nga financer ma pour ma liggéey alors que peut-être nit ki day comme ni ni ni kaddu def day weesu état mënul financer ñëpp. saa nit ki il faut que nga am audace mën a dem wuti dara pour am koom cest à il faut que nga trouver wu des coins yoo xam ne mën nga fa jéggi dara pour am ko mais loolu état ni mu koy defee moo il faut état mu ay partenaires yoo xam ne cest à ay partenaires financiers yoo xam ne tey jii ñëw samp ci réew pour que jeunesse boobu nga xam ne tey jii jàngul mais am na métier nan laa koy orienter pour que mu mën a dem foofu noonu jëli dara pour mën a investir ci réewam donc ñaari jeunesse yooyu bokkul parce que jeunesse bi nga jeunesse bi xam ne tey jàngul demul toog maanaam jàngul ci éducation euh, ci formation professionnelle bi ngeen jàng mais am na métier boo xam ne métier traditionnel la exercer ko ba am ci benn benn benn xarañte alors que kooku dafa laaj ñu orienté ko dafa laaj ñu wan ko yoon yi nga xam ne moom mooy finalement jeunesse boobu aussi dafa laaj moom ci boppam mu xam ne du dama war a toog xaar état rek ne bon liggéeyuñ Sénégal amul xaalis boo fi liggéeyee ba pare doo ci am sa métier doo xam noo ko utiliser fii laa nekk amuñu place amuñu espace mais il faut que chaque jour boo jógee boo xëyee nga jéem a xool fan mooy coin de financement bala fan mooy les coins pour trouver des partenaires pour que yow nga mën a am yow nga mën a avancer. Alaaji loo wax problème jeune Sénégal lan la. Euh, faux départ. ah oui faux départ. ok c'est ton analyse ah je respecte. faux départ j'attends le développement. d'accord <coughs> je m'explique. da ngay judd am sept ñu dugal la école ba ba ngay dem terminal préparé wuñ la. balaa boobu dem nga daara xanaa. waaw dem ñenn ñi. nga dem nga dem ba terminal préparé wuñ la mooy li nga wax li kii laan la léegi du du du lu bees. Mm. nga jóge fa ñëw université def licence un licence deux licence trois nga cartouché ñu teg la à côté nga xëy toog ci bopp koñ bi nga def format nga def tenté tenté concours jàllul. nga gis sa benn morom boo xam day jël trois cent wala cinq cent dugal ko fenn am fa benn deux cent mille déjà am na lu dugg ci boppam loo waral a lu lu koy wax ne fii nga topp dix huit ans amoo ci dara toppal foo xamante di nga si mën a am dara boo benn ñaareel ba mooy pap dafa am loo xamante ni mooy euh, le mal dafa départ coupé ko mu dem ba jël ampleur. Mm-hmm. ampleur bi mooy lan jeunesse bi léegi koo ci wax lu mu lay wax kenn doo la wax xam-xam certes boog laa la wax lu ñu lay wax ni may mën a toog fii léegi am léegi di dara. on a besoin de vivre ah. bien sûr mais booy vivre da koy préparer en fait. Mm-hmm. préparer sa bopp d'abord kon mooy waral foo départ bi ma wax léegi léegi kon moo ñu topp. parce que imagine nga dem nga baam ba ba dix huit ans vingt cinq ans loo mën nga ne man lu baam baax na génn université léegi ki nga xamante ni jàngul moom toog ci bopp kon bi gis kooku noonu lan lay wax kii moo jàng bu toll fii xamutul xamutul dara fu mu jëm. Mhm. amutul dara mu def léegi man mi nga xam ne jàng ma nan laay def. Mhm. est ce que xool fu ma fu ma mën lijjante sama gañ de gañ de loo xamante ni. dinaa si mën a am gañ pain dinaa si mën a am dara et ma continuer. léegi loolu moo lay topp moo lay topp ba nga dem en moment boo xamante ni ngay doog a jël nga jël conscience sa bopp fekk affaire bi c'est trop tard. Mhm. suñ problème wala Pape Sidi. Mhm. faux départ. il faut ñu jël benn méthode bu ñuy jàngalee suñu xale yi. Mhm. sama euh, ki ma tuddee sama taaw bi dafa dem France ñu ne ko loo jàng mu génne seize dix sept matières ñu ne ko yow lii est-ce que xaj na si bopp doomu aadama. yéen da ngeen dof wala lan la. wallaay fii da ngay judd ñu ñu ne loo bëgg nga ne lii nga bëgg ñu préparé la si. et puis nga dem yow sëñ nga judd vingt cinq matières dugg si bopp mais boo demee ba à un moment donné da ngay sa bopp bi day tëj. doo xam loo bëgg kon man nii laa sax damaa kii woon hmm? mais boo c'est c'est, c'est, c'est extraordinaire euh, le cadet. Mm avec les angles de traitement et les visions qui sont différentes comme ça vous connaissez que. koo jël ci ndawu la première des choses bi mu lay wax mooy il s'attaque déjà à l'éducation mhm. et la formation que nous avons acquis très tôt il y a deux façons de faire une formation mhm. aujourd'hui l'économie du pays est entretenue par le secteur informel mhm. et d'où vient le secteur informel dans les daara les daara n'ont pas de subvention les daara ne sont pas euh, payés par l'État en général c'est des gens qui vivent même dans les coins les plus reculés du Sénégal bokkul ak Euh, defuñ bay amuñ benn jànguñu métier quoi. Mm. mais boo demee Colobane wala nga dem Sandaga wala nga dem ci bureau yi am na koo ci fëgg boppam mu ne la man daara laa jógee te grand commerçant la import export laay def. Mm-hmm. Mm-hmm. donc formation bi moom xëy na bu école bee baaxul waaye bu école bi sax mu ngi forme ay greffier di former il prend l'élite quoi. Mm-hmm. mais xëy na mais dans l'apport que Cadet vient faire est-ce que avec ces problèmes que nous avons que vous rencontrez. est-ce que vous avez réussi à faire quelque chose de de palpable. voilà c'est la question que je voulais entendre jërëjëf Pape Sidi. Mm-hmm. parce que déjà pour dëggal li nga wax par rapport à euh, tey le côté formel des choses. dañu mm-hmm. ne téeméer boo jël ci Sénégal euh, li ci formel motul quinze maanaam motul fukk ak ñaar fukk ak juróom loolu c'est chiffre qui qui xam nga loolu moom wax dëgg yàlla mënul def dara. moo tax à chaque fois il y a incompatibilité encore entre li nga xamante ni mooy les chiffres de croissance de notre pays ak li ñuy dund au quotidien dama jotoon di waxtaan ak euh, benn mag mu ne ma les chiffres parlent mais on les entend pas mhm. muy les chiffres de croissance économique du Sénégal de croissance du PIB tout simplement parce que tey loolu noonu mooy li ñuy wax la formalisation bëriwul c'est pas acté mhm. maintenant comment le cadet tey a pu faire déjà des choses qui vont impacter li ma lay wax la recherche de terrain d'abord mhm. sur le terrain euh, am na image yu nga xamante ni boo ko génne woon on était on était à Ziguinchor. Mm-hmm. on était à Ziguinchor on a fait une séance euh, qui a été dirigée pilotée par le coordinateur national à l'agence universitaire francophone maanaam ñooñu tey c'est les jeunes au moins yu nga xamante ni boo demee voilà kii nag euh, kii bii waaw fa la bokk Ziguinchor la mais kii elle fait à partir des coques d'arachide du charbon bio mm-hmm. donc elle est chargée de d'une commission au niveau du bureau de cadet de Ziguinchor donc cadet aussi dafa am vocation bi ñuy waxoon cette vocation à porter les projets porter les projets pour maintenant dans le pilier qui la promotion de du à l'accès au financement jàppale ñi nga xamante ne ñii par exemple tàmbali nañ ba pare bii Tivaouane Peulh la mm-hmm. donc ñi nga xamante ne tey tàmbali nañ ba pare maanaam ces entrepreneurs la qui ont su quand même commencer leur projet sans aide mm-hmm. ñooñu tey ñooñu la cadet gën a mën a liggéeyal maintenant Pape mu la doon wax sànq ci dim lay wax dans le secteur de l' informel. dans dans le secteur de l' informel fa laa jëm. Mm-hmm. mooy tey ñooñu nga xamante ni tey ils sont dans dans les formels. on on l' accepte daara ji ak ñi yor ay métiers ak ñoom seen. nu nu mu métti métti ñooñu gën a doon ay góorgóorlu. Mm-hmm. parce que fa la ñu jógee. Mm-hmm. donc ñooñu tey euh, politique publique xëy na du leen laal lu bëri. parce que formalisation non formalisation loolu mooy conséquence yi on le sait. donc tey fa la kat yi mën a jaar en soi pour aller à la recherche. comme ni ma koy waxee mënuñoo def lépp munuñoo laal ñëpp. Mhm. mais tey euh, boo bëggee sa politique sa action gën a mën a porte il faut comme ni ko Pape Seydi di waxee nga mën a euh, dem vers ces gens-là qui sont dans l'informel. Mhm. et c'est cette politique-là que nous avons adoptée c'est un choix yombul. parce que euh, c'est c'est des réalités qui sont différentes mm-hmm. mais tey euh, lii nii booy bëggoon boo bëggoon wax loo xamante ni c'est du palpable lu nga xamante ni Kade tàmbali na ko parce que c'est important de le rappeler aussi Kade c'est un bébé de six mois mm-hmm. Kade mot amagul un an yaak euh, septembre mille deux mille euh, vingt trois lay am incha allah une année mais ñii c'est c'est des choses yoo nga xamante ni on a commencé ça sans sans aide externe forcément sans gros moyens mm-hmm. et yi nga xamante ni on sait naturellement que l'impact est te bés bu impact bi commencé en 2023 avec euh, peut-être beaucoup plus de fonds gëm nañ ni euh, y aura un un changement. parce que mais aussi war na jéem a xalaat bu baax a baax a baax li nga xam ne moom xam nga la marché local moom informel moo ko gérer. Mhm. marché local africain. le le marché local africain. justement donc informel moo ko gérer donc comme li Pape Sidi wax question boobu day ñëwaat donc kada il faut parce que boo xool 65 pour cent ci ci ci ci ci ci li nga xam ne moom mooy euh, population. africaine bi ñu ci bëri ils sont dans l' informel alors que il faut que ngeen xalaat ci naka la ñuy dimbalee le jeune artisan le mm-hmm. jeune euh, menuisier ou le jeune cordonnier ou le jeune bi nga fekk ne le mu nekk mm-hmm. wala les femmes yi nga xam ne ñu ngi à Ziguinchor kii wax na ko sànq li nga xam ne seen produit ak seen matière bi nga xam ne am nañ ko foofu mm-hmm. te ñu mën ci jëriñu boo demee ba Tamba euh, banaan bi fa nekk ñu mën ci liggéey donc war ngeen mën a xalaat ci secteur boobu bañ a limité bañ a yemale seen ci rek ci mais mais Alaaji loolu loolu mooy loolu mooy loolu li ñuy wax kade ëpp côté incubation sànq Pape Sidi moo doon la question de définition de l' incubation incubation du lenn en terme pur français mm-hmm. mooy lu nga xamante ni da ngay couver ay nen donc de l' embryon à l'œuf mm-hmm. maanaam dafay jóge tey ci dafay baax ci loolu mm-hmm. dafay baax ci ci jeunes yooyu nga xamante ni tey am nañ li nga xamante ni mooy des potentialités pas forcément yu ñu xam mhm. dans leurs différentes localités mhm. maintenant ñu proposer leen ces packages là qui sont liés à l'incubation du cadet package boobu dafay laal li nga xamante ni mooy formation dafay laal li nga xamante ni mooy accompagnement mais suivi rapproché surtout mhm. parce que tey si on part des politiques publiques parce que lépp lu ñuy def tamit il faut que ñuy jógee des politiques publiques maanaam li nga ni moo fi ba pare pour en sortir les carences li manqué pour ñëw ñun mun ci apporter une touche bu nga xamante ni c'est une touche qui sera une touche euh, qui va impulser en quelque sorte le changement. Mm-hmm. donc euh, l'essence de Cadet Hub boobu noonu tey bi nga xamante ni c'est un projet qu'on veut lancer en 2023 et auquel déjà j'appelle euh, toutes les les entreprises les partenaires à à y travailler avec nous il y a la visite d'entreprise que que les partenaires que la que la commission des relations publiques a commencé donc ils font un très par rapport à nga xamante boo ci dugalee sa xaalis c'est pas un argent bu nga xamante ne tu as lancé ça la poubelle parce que c'est un projet qui est bien défini avec des objectifs des objectifs qui sont mesurables parce que lépp lu ñu teg ci objectif par exemple si on dit qu'on va former 5000 jeunes mm-hmm. en 2023 dañ ko teg fu wóor mm-hmm. parce que juste avec une seule salle je di dis bien Pape Sidi mm-hmm. et un mercredi par semaine on a su former 700 jeunes juste sur Dakar 700 jeunes ngeen formé ñu ngi fii euh, le siège de CADE est fii au niveau de, Albert Sarraut mhm. en ville c'est à la fois aussi la une, institution qui s'appelle Jacadémie qui forme autour de la prise de parole et leadership mhm. loolu madame Jacqueline Fatima Bokoum ko moom c'est le lieu pour nous de la remercier parce que dafa bokk ñooñu nga xam ni elle croit fermement à la jeunesse mhm. te dañuy def pour ne pas attendre quelque chose en retour yombul nga am koo xamante ni gëm na la bi ñëwoon puiser en soi j'adhère et j'apprécie aussi. puiser en soi dafa jot nous sommes à cette terre là. Mm-hmm. Euh, Moustapha Diakhaté moo ko doon wax le Sénégal ne sera émergent que lorsque chaque jeune. Mm-hmm. saura qu'il a un devoir. Mm-hmm. d'engagement envers son pays. mooy le patriotisme d'entreprise fa la japonais yi rawee. fa la asiatique yu rawee. ils ont en chaque œuvre entrepreneuriale bu ñuy def une chose qui va porter au moins sur l'impact de euh, à la population. bu soobee yàlla man de wax dëgg yàlla hmm. rafet lu naa woon waxtaan wi neexoon na lool waaye xam nga hmm. heure bi moom sa bos hmm. ah yow i dañ ñoo laaj waaye dégguñ sa xalaat alaaj ndax xam naa ci yéen. Ah, bu doon laaj ñu ñu wax nan ngay toog ay borom xam-xam yu mel ni yéen di wax. dama ne bi lan moo tax jeunesse bi sa waay El Hadj. liggéey nan ay borom xam-xam yu mel ni yéen. sama kàddu ñu may dégg. waaw waaw Pape dafa dafa dafa am ñaar ñi ñoo xamante ni. Eh? wax ma la émission bi de wax ma la yow de mais émission bi dañ koy dañ dañ koy bëgg bu baax a baax a baax di lundi au vendredi. Mm-hmm. Sagara Diaw ak Birane marché marché marché Jaxaay. macha émission bi loolu lañ bëgg. surtout maa sagar sagar ak biraan moom xam naa ne euh, ku leen fekk foofu loolu ku leen wax lu lu gët mën waxu leen dara donc nuñu sagar jaw ak biraan biraan jànko do xasida bu bu bu bu bu yëkkatee rek nga daanu donc ñu ngi leen gërëm baax a baax a baax waa jaxaay macha jaxaay ñu ngi leen di leen gërëm donc message baa ngi noonu jàllal naa ko sagar yaak euh, biraan mu ngi noonu Pape Sib jëlal seen yóbbante ak toute l'équipe de Good Morning mais rawatina bi nga xamante ni mooy équipe bu lundi bi jërë ngeen jëf soobee yàlla alaaji sant naa la gërëm naa la waaw man de man de xanaa damay wax sama sama xaadim GS bi daba yaa ngi may jëlal waaw GS dafa génnoon ñëw na xaadim GS donc euh, toujours euh, moo nekk ci man. fidèle à dañ koy fàttali bi ñu joxe ñaari yére. 067 yow yaa jël bu rafet man chaque jour bu ñu joxe ñaari yére maa jël bu rafet alaaji. kon kon ñaari comme damaa yére daf may. Ah, non yow rek. yow gannaaw bu man damaa ay quarante yor. <laughs> waaw Ibrahima wàcca. waaw euh, Prince li ñuy terminer c'est c'est message pour pour la jeunesse. Mhm. maanaam tamit dañoo toll ci ère bu nga xamante ni il faut que ñu ñu travailler en synergie. il faut qu'on harmonise nos forces. ñu ñu bàyyi defante bi di di jëfalante suñu biir ñu ñu nangul ñu nangulante gëm ni on est on est à cette terre je le répète la génération Z bu nga xamante ni on ne doit pas rater le coche il est important qu'on puisse travailler ensemble permettez-moi de le faire en français parce que dama ko gëm man je ne crois pas en une jeunesse qui est tout simplement propre à une nation je pense qu'une jeunesse va se développer en synergie donc je pense à une jeunesse africaine te le jour où on sera tous dans cette dynamique là de travailler en synergie d'être aussi dans cette logique d'un engagement sincère l'engagement pour moi lorsqu'il est communautaire mën nga ci am say gagne-pain mën nga ci am lu la neex mais l'essentiel c'est que li li ci ëpp solo que ça reste le service à ta communauté et en tout cas nous le CADES loolu la ñuy on à cela mm-hmm. ñu ngi ci bu baax Prince on te remercie Aladji. merci parce que lii dafa am solo. Mhm. le fait de de permettre aux jeunes d'avoir une vitrine pour exposer euh, ce qu'ils font def li nga xamante ni ci la ñu nekk. ce n'est pas donné ce n'est pas donné à tout le monde di la ci jaajafal bu baax di jaajëfal Pape Sidi pour le travail mm-hmm. constant loolu moom mm-hmm. yaakaar naa c'est tout le Sénégal qui le qui le fait à la découverte xam naa après dañuy ànd beneen yoon rek oh, <laughs> sans souci ànd ak kade euh, ñu dem antenne Kaolack léegi léegi ñu ngi gërëm le grand jeune du Sénégal Alaaji Taal Ngol Ngol macha allah moom ak Daba dañuy passante coupon yi mm-hmm. <laughs> naar bi